gouvernement bi dafa am mébatam dafa am euh, yéeneem euh, yàlla nag mooy dogal mooy indi tawam moom nu mu ko neexee la koy indee nu mu ko soobee la koy indee ren moom taw bi euh, wàññeeku bu baax a baax taw bi nag bu bu fekkee dafa dafa dafa yéex a ñëw teel a taxaw loolu waral nag mbéy yu bare wàññeeku nañu rawatina mbéyum njëm ngémmiñ yi ah, loolu loolu daal laa mën a wax ci loolu taw eh, bi moko eh, waxal ci walu ay misal yeen nga am bokoy setti li ma gëna xam muy coton euh mbayum coton bi dinañ tollu ci euh juroom ñetti barigo digënté juroom juroom ñaar ak juroom ñetti barigo ci wali rendement lolou ni du rendement bu baax waye comme baykat yi eh, ndigli yëg euh, yokk bu mag dañ jógee ci deux cent cinq francs kilo bu ne yóbbu ko ci deux cent cinquante cinq francs loolu dina néewal li muy méttee ci baykat yi euh, gis nañu euh, peese bi tàmbali na baykat yi ñu ngi jot seen xaalis te gis nañ ni tane la tane la ci wàll woowu waaye mbéyeef bi wàññeeku na niñ ko foogee woon niñ ko séentoo woon àggu fa li des nag am na sax lu nga nga xam ni ku ne yëg na ko muy euh, suñu usine nekk kawoon dañ ko dàkkal saisonnier juróom-ñeenti saisonnier ñi fa doon liggéey ren du ñu mën a liggéey ndax li am ci Nioro ak Koungheul tolluwul ci euh, junney ton mu ngi toll ci euh, juróom-ñetti téeméeri junney tonn juróom-ñetti téeméeri tonn loolu loolu nga xam ni mënul may ñu ñu ñu liggéey Euh, ñu liggéeyloo usine bi ndax usine boobu euh, ñetti junni tonnes moo koy tax a mën a liggéey ci anam yi yu sell looloo waral daal euh, BF bi wàññeeku na waaye comme njëg li yokku na loolu may na béykat yi ñu mën a ñu mën cee génn daal. mais période soudure bi day gën a yàgg. ah waaw <laughs> bu fekkee nii mayu njëm gi bi wàññeeku na njaayeen yi bëgg ceeb. Euh, du ñu mën a am ceeb na mu war euh, du ñu mën a am en tout cas lu ñu lu ñu lekk na mu doy na mu doyee ragal naa ni daal euh, soudure bi dina xaw a metti ren waaye buñ ko teelee xam jël jël moyen daal yi ñu war a jël ngir jàppale nit ñi ci loolu lu am maanaa la. bu ko teelee xam mu mel ni kon war nañu am politique yoo xam ne xëy na buñ ko sampee mbir mi dina gën a mën a wàññi métit bi. voilà exactement. Voilà, exactement. <laughs> Merci. <laughs>